gis ñépp jëm faneen fu bokkut ak fi nga jëmitam itam su xasee xam li ngay dox lan la tamit lu la amal njariñ mbooloo mépp jëmoon na ne ni bu tax yow nga wàññeeku di leen topp continuel ni nga jaaroon même bu doon dem nga ba wéet ci yoon wi yow dong fa ngay jaar nga xam ne àndoo kenn nit wéetaay moo gën fuuf nga bàyyi sa bopp fekk keneen pour gërëm loo ko waxiin bi boo ko déggee da jàpp ne jóge palaas dem palaas la waaye ci comportement ci ay jikko ci ay principe nit am nu mu mel na mu mel de wax dëgg yàlla buñ ko gëstoo duñ ci gis benn sikk waaye mu am ñeneen ñu ko bëgg a wëlbati melloo ko neneen moom lay wax ne na dëgër ci ni meloon bu ko kenn wàññeekuloo donte dem na ba desewul kenn sax na jàpp ci yàlla te mel ni mel su fekkee melokaan bu baax la ndax bu fekkee da nga naa bàyyi ni ma mel pour toppi ñeneen kët ndax ma gërëm loole du tax nga am seen ngërëm te soppiku gi nga soppiku dana la lor loolu lañu xikma bi doon indil tey bu ñu fàtte benn yoon di wax allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin annabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi sant ñëpp di gërëm di jéglu wasalaamu aleykum wa rahmatullah